yu waa 313 digital yëpp. bisimilah. ayca eh, mais mais Khalifa bi fi ma bëgg ñu tàmbalee mooy juste la sortie de Bougane Gueye parce que boobu dama bëgg ñu ñu ñu def ci euh, taxaw seetlu bi pré bi PM génnee ba pare Bougane dafa génn dal ci kawam euh, ban gis-gis nga am ci Bougane Gueye moomu. ah waaye Bougane moom gaan jarul sax ñuy wax ay waxam waa Bougane doxatkat bi doxat lag lay def doxat kase la mën moo wax ay nen baxalam nañ may suñu jaamuwaay. ñun gaan dañoo sonn waa ñun jeune sénégalais yi jeunesse bi gaan dañ sonn ñun sénégalais yi dañ jaar fu lëndëm fu naqadi buggaan ñëw di ñu wax ay waxu nen baxal maaxal laa doxatkat la doxat lekk la miin di wax askanu Sénégal di se message waa jooni jooni ñi nga xamante nii lekk na seen xaalis te fayu leen ko nañ def signe incha allah rabi ñu jàppale leen lancer pétition bu ko defee. ñu jàppale leen ngeen def plainte collective Bougane Gueye Dany place am kaso la parce que sàcc la booy ku dagg say employé impôt ah. Mhm. après fayoo impôt loolu détournement deniers publics la yaa ngi dégg. Mhm. man tey say yu bëri sax neexuma ko waa yu bëri naqadi na ma dinañ si ñëw si kanam. Mhm. comprendre waaw mais état bii ni muy doxalee saa waay dafa bëri gaan ay affaire de faiblesse quoi. moo tax journaliste su gars yi bu ñu naan lii état faible la ñun daf ñuy naqadi ba si kanamu yàlla. parce que gars ñun ñoo ko xeex démb ñu gëmloo ñu projet en commun bu ñu nee bracelet ñu jënd yu dul jeex ñu takk di maye bu ñu nee cotisation ñu jël suñu alal def si bu ñu nee saawaay xoola xeex ñu génn si mbedd yi koñoo koñ di wër koñu di xeex. Mm-hmm. waaw ba pare noonu nañ doon ñëwee si média yi di wër si média yi di xeex dem ba fës si est-ce dégg. Mm-hmm. kon ñun gars projet bii nii saawaay daaw kon démb si man presque ñoom ñëpp a woon. ñun ñu gën koo gëm jël suñu alal jaay ko produire vidéo clip suñu président mooy Ousmane Sonko wax leen ni maam projet bi dëgg la te dëgg mooy mujj est-ce que ay dégg. waaw ah, pour wàllu lii lu ñu gëm la kon waruñu xeex gaan ñëw ba fal gaan jomaay xam nga fal projet bi wala boog ñuy dafay acte yoo xamante ni nii gaan yii ay manque de reconnaissance la yii ay lâcheté yii ay faiblesse wala boog. booy lan mooy saawaay ndeyu gaa nitu Macky Sall yi ba léegi booy ñu ngi job booy nga dem si ministère yi nga dem primature présidence nitu Macky Sall yaa ngi fa ba léegi lettre bi andi woon coow bi fan yee passé ñu naan Cheikh Omar Diagne xaw ma mënul sax bind français ñun dañoo xam réew mi de fii nañ dëkk maîtriser temps bi lépp luy daw benn seeru Omar yu moo ko bind. Ah waaw yow doo may sama jàmm dégg lu ma la ce sont toujours les mêmes yi mais lii est-ce que. boo demee ba Cheikh Tako Diop. Mhm. ñu jox ko couverture maladie universelle CMU. koo xamante ni jomaay wàccee woon na ko même pas un mois. xam ni nitu Macky Sall la daaw ñu ngi yéene woon Sonko dee nitu Macky Sall yi. Mhm. yaa ngi dégg jeune bu ñu rey si mbedd bi ñu kontaan ne naan boo leen seen kër yi kenn du leen rey est-ce dégg ñu yéene woon saawaay continuité yéene Macky Sall am troisième mandat wala Amadou Ba falu ñu booy saawaay jomaay toog ñenn ñi ñu wàccee leen Cheikh Tako Diop ki mu nommé noonu daaf femme boobu noonu. Jomaay da ko nommé même pas un mois Cheikh Tako Diop fal ko parce que cousine la ay mbokk Ismaël Madior Fall mu fal leen ay mbokk xaw ma Ablaye Diouf Sarr mu fal leen booy nitu Macky Sall yi ba léegi ñu ngi leen di jël ñuy job ñun ñu continuer gaan di sommer gaan la mooy ndeyu loolu trahison la barki Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nit ku dëggu ah ku sincère. moo lay wax dëgg te yàlla rek a tax bu nekkee mooy xàmmee trahison ne lii trahison la te trahison yàlla du ko baale yàlla da koy àttee. mais bu ñu nekkee nitu Macky Sall war moo tax ñu ku war ren. ba mhm. déwén mu jig la lay da ñu àndoon ak Macky Sall te te jub te doon ay nit yu jub. doon ay nit yu intègre maa ngi ñëw si loolu nguur nguur mun na war yàlla di seetaan parce que doole bi mu jox nguur la est-ce que mhm. Sall si premier mandat la ñu trahi war ñu ñun bi ñu daan génn di dénoncer ñu déggaloon. Macky Sall du sax am deuxième mandat si premier mandat bi dañ ko commencé xeex moo tax élection 2019 bi si kaso bi lañ fekk yaa ngi dégg. Mhm. teewul yàlla ko seetaan jox ko deuxième mandat. war baaxul trahison baaxul manque de reconnaissance baaxul wala ay kumba am ndey kumba amul ndey jël ñii nii ah jàppale leen jox leen ay postu jox leen ay joob yu mool ñii ñu jël leen seetaan leen wala boog man dama koy nakaralu di ko ñaawlu man gaan ay tricherie yi neew ma si de man dëgg laay dund te yàlla rek a wax dëgg bi te yàlla rek a tax est-ce que waaw lu ma nëbbul yàlla du ma ko nëbbu doomu aadama loolu maa ngay dénoncer di ko ñaawlu di ko nakkarlu parce que gars ma la sumu waay am na ay ministre ak ay DG yoo xam ni xoola ñun ñoo leen gën a xeex fuuf du sax benn est-ce que ñun lu ñu daj ci seen projet bi ñoom xaaj-xaajaat bi dajuñu ko si est-ce que waaw loolu nax gars lu salte la lu ñaaw la maa ngay dénoncer comprendre voilà tey si tey nax da ngay gis ay malfaiteurs di génn di wax di ruube di saaga askan wi wala boobu. Hmm. Bougane nee naa la place am kaso la. yaa ngi dégg détournement deniers publics jooni jooni rek sénégalais yi nga xamante ni fayu leen seen xaalis loolu sàcc la. Hmm. te xam ngeen loi lu mu wax ci sàcc. kon gaan bu fekkee état bi mënul jël ay responsabilités am di dawal justice di yamale sénégalais yi parce que boo yaa ngi def si temps bi ba léegi ñu leen di jàpp di leen yóbbu brigade wala gendarmerie di leen déférer. yaa ngi dégg booy ñu ngi leen di jàppee ay juin di leen yóbbu si kaso yi sàcc yu mag yaa ngi fi ay Bougane ay Amadou Ba ay Barthélemy Dias ñeneen ak ñeneen mbëkkatu suufu Sénégal yi ay Aziz Ndiaye Doro Gueye Elimane Lam Waly Seck ku lim juum malfaiteur yi ku lim juum malfaiteur Sénégal yi ku lim juum les criminels financiers les criminels fonciers Mamboy Diaw ñi nga xam ne ñoo mbëkk suufu Sénégal jaay si ay milliards. tey ñu ñëw naan dañuy rejoindre Pastef si législative yi wala boog gars ñun xeexuñu woon pour ay yaaman neex nii wala affaire yi de man mu boowuma kenn man xoola xalifa rappeur laa mu ñu askan wi mu boowuma pàpp mu boowuma yaay mu boowuma sëriñ mu boowuma doomu aadama bu dee dama mu sax yàlla ji laa mu boo ak dëgg est-ce dëgg te dëgg boobu moom laay dund te yàlla rek a tax mhm. te dëgg mooy mujj mu kenn dama xeex pour ay principe ak ay valeur ak conviction mais la mooy ndey ñu xeex gaan ba heure bii saa dara changé wul gaan wala boog ñuy gën sonn di jël ñoo xam ni gaan dajuñu dara ci affaire bi jël leen di leen jox ay poste ak yeneen ak yeneen wala boog am ñoo xam ni seen xeex tëdd kaso kasa la te man bi may tëdd kaso saa waay xoola yii sax xewagul man bi may collé motif kenn colléegul motif ay terroriste wala affaire yooyu est-ce ay dégg. Mhm. waaw bu ñu neexee nag ñu wax lépp te xoola proposition yu jeex laa am. proposition yu dul jeex nee naa ñoom ñoo toog si état même DER sax xam nga DER daf lay lebal nga fay. DER sax su ma musee lekk ñaar dërëmam na nga ma tëj si kaso bi 5 ans su ma musee am opportunité état na ma jël tëj ma si kaso bi 5 ans musul am musuma lekk xaalisu état te am naa proposition yu dul jeex ñoo xam ni nii na leen jëlee sama kanam gaan ñu saaga Sonko wala yeneen ak yeneen man Sonko saagoo ma ko te du ma ko mus a saaga respect laa ko amel te. gor la te ku reconnaissant la parce que gëm naa ni xoola Sonko mhm. bu doon moom kese la yii yëpp sax du am quoi. Mhm. parce que buur aayul daggee aay. yaa ngi dégg. Mhm. am yoo xam ne man dama koy dénoncé di ko ñaawlu. ma jàmbal jaay te man la sum waay dëgg mooy mujj bugaan. bu fekkee état bi am na faiblesse ba mënuñu ko jël yóbbu ko si kaso bi. kon waa jooni jooni képp ku mu yoreel sa xaalis ñëwal ñu jàppale leen ngeen def plainte collective ñu lancer pétition. bu ko defee mu arrêté doxatam yi parce que gars sonal nañu witikuwaa ñun askanu Sénégal. Madiambal Diagne mi Adji Sarr dafa war a ñëwaat. dafa Madiambal Diagne tamit fenkat la yooyu ko def fitna la. Madiambal Diagne. nee na ay sa bëgg lu ñëwaat